bëgg lii laa bëgg bul cof sama bu ko cof. <laughs> musu ko cof. bul cof kadeer non non ordinateur bi la ah, ordinateur bi la <laughs> ah, bul cof bul cof sama xarit nga ni nga may defee nii sànq ba léegi ñu ngi si jàmm démb ba léegi bu si gis sa bopp yow tamit sàmb ngom koy wax rek man dama bëgg ku ma naan ciix ci digg bi bu ma kenn <laughs> coppati bisimilah uh-huh. dañuy defaat rek li nga xamante ne moom mooy benn rek récap comme waxoon nañ fi semaine bi yëpp comme ça nag tey le jour J ñu daal di si dellu si waat wax li nga xamante ne moom lañ tere woon fan yëleenee passé si ginnaaw surtout xale yi nga xamante ne dañuy daal di génn da nga jaxase téléphone hmm? bi noonu non man dama ah, damay am yoo xam ne dama leen gis <laughs> comme tout le monde <laughs> voilà sama li <laughs> comme fi ma koy dooree mooy ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi nga xamante ne instant yi ñëpp commencé nañu préparer ni fomp nañ daal yi ñii dem nañ si tailleur yi ñu leen pantalon yi ba mu surtout góor ñi peew yi slim yi mais dégg naa gars yi ñu sol peew dañuy sol am benn mbuus sol pour mun a dugal pantalon sama doom bu jigéen moom lay sol mbuus maa gis loolu mbuus ay mbuus hein? xam sax sax d'habitude duñ def loolu parce que ñun suñu pantalon yi lu muy seere dafa am élastique voilà stretch lay mais góor ñi nga xamante ne seen pantalon <laughs> <laughs> góor ñi nga xamante ne seen pantalon yi d'habitude ay keke lay doon xoolaat sa bopp ñu weñ ko ba mu set ñi nga xamante ne keke lay doon wala jiin foo leen fekk ñi ngi jël ay mbuus mbuus yi lañ déjà man loolu man non àll moo mës a fekkee wee kuy sol tubéy bu sayre góor yow da ngay choqué man waxuma sax sol bi sol bi yomb na mais nan koy summee après. ni mu ko solee noonu la maa ko gis. mais même ni nga ko solee boo ko summee. après summi bi moom mooy. gën a laar yow da ngay joxe conseil wala da ngay da ngay xaste. non non war a sol tey. pour être joli et beau et belle bàyyi wax ma bàyyi bàyyi ko mu concentré wu. am na góor ñoo xamante ne mën nga sol sa benn jean. Mhm. def sa genre pull bu rafet def say euh, training et mhm. tout ça dépend ci ku nekk ak sa style mhm. ak fa nga jëm bu dee nga dem ay place de l' indépendance dem taali def say basket def sa jean def sa pull bu rafet di sa casquette ko wala genre yooyu bu fekkee ne da dem ci de gala ah. par exemple Youssou Ndour di tëgg genre mën nga costume rafet

am na veste yoo xam ne léegi croisé la dafa xew. dafa xewaat oui mooy quatre boutons. quatre boutons yi que muy ci góor muy ci jigéen mm. dafa xewaat ku si nekk da ngay sol da ngay daal di sol sa quatre boutons bi si quatre boutons yi da ngay mel ni kii. Euh, yaa ngi nuyu kato waykatu kan Congo congolais bi nu mu tudd. Kanda Bongo man. déedéet Papa Wemba. Koffi Olomide voilà moom ngay daal sol. mu daal di mu daal di civilisé. pour xale yi aussi nañ leen veiller à ce que ñuy sol ay yére yoo xamante ne bëccëg bi lu mu tàng tàng guddi gi boo génnee dafay sedd. absolument. te comme Maïté li mu doon joxe léegi conseil santé lekk lu bon moytu leen aussi attraper froid. Hmm. parce que gis nga sedd bi bu la duggee moo gën a métti intoxication hmm. alimentaire day mel ni ay ngelaw yu sew ñooy jam si sa yaram. dafa métti non balaa ngay xam nga courant d'air bu la duggee àll yow da ngay foog ne da ngay waaj a dee. ngeen dañu ventouse la. am na ñoo xam ne ñemewuñu ventouse am na ñoo xamante ne balaa ñu leen di yóbbu ventouse foofu la métit bi di di nekkee euh, même que pétard yi fi mu toll nii benn parent nelawatul ñun suñu koñ ndeysaan boo fa duggee da ngay foog ne sax leneen moo fa am ay bal nga koy teg foo toll yaa ngi dégg telli telli telli telli attaque nga koy teg loolu aussi ku ci taal pétard na nga moytu sol yëre yoo xamante ne dafay doon synthétique wala muy doon ay yëre yoo xamante ne satin lay doon wala muy doon genre leen yooyu nga xamante ne bu ci affaire bi ne tay rek boo moytul sa yaram bi yëpp dafay mujj la. Likra am na ba léegi. Likra waaw Likra si am na. Likra ah, mi ngi am ba tey moo rafet. waaw Likra dafa rafet parce que boo ko solee dafay jël forme looloo tax. loolu kese tax man moom lu nit di tourné damay ñëw wax ko. voilà mu daal di jeex. man de waxuma. Likra am na velours am na velours léger. non non Likra moo gën am na beneen yooyu eh, am velours de. am na velours bi dafa rafet dafa rafet man xam nga man tissu ah. laa gisatul yaa ngi fàtte ñàgg ñàgg yow wax nga lu yàgg de ak dërëm yaay. yaa ngi koy moom xam na ko tout lu mel ni lu xaw a froissé yii nii loolu leen doon ah li ngay laajte mi ngi nii bii nii Licra baa ngi dafa mel ni velours bi moo nekk nii en bleu voilà velours bi ah, même ñi nga xamante ne tey dañoo bëgg a génn mën nañoo dem jënd velours benn deux mètres velours da nga koy mën a ñëw sa robe bu trois quart bu cintré daal di am sa manche euh, bas cigarette manche slim bu rafet mu daal di rafet daal di civilisé ñagg ñagg war nañu ko seetal ñu wan ñu ko de ñagg leen moo wax mooy surtout ni dafa am saway fàttali ko ñu jamono dañu jox ay conseil pour gars yi tey mais mën nañ ko sol tey mukk si àdduna tissu yi du tissu yi amoon avant ay ay ay ay yii nii du moo ñëwaat kon kay ñàgg ñu nañoo c'est que c'est ça nak c'est que beaucoup de tissus yoo xam ne dafa ah amoon dañoo dellu dañoo dellu lour bi ni dañ nañ ko sol mais dañ ko arrêté woon mais ah voilà am na ñoo xamante robe yo xamantene ne prêt lay doon comme ñi nga xamantene dañuy dem di jënd ji ay prêt pour sol ko tay mm. buñ ko amul mën nañu dem ci marché bi marché velours bi 2000 francs le mètre bi commencé te bi gaaw na ba si kaw da ngay dem jënd sa benn 2 mètres double largeur la mm. bu fekkee ne ku tuuti ku mel ni man da ngay jënd sa benn 2 mètres <coughs> nee na ko tuuti ba deux mètres doot. xoolal kadar mi dee. sawar <laughs> kon xanaa man six mètres laa jël. yow set set ngay jël. voilà ah, kon xam nga ne yow man maa tuuti yow tuuti woo. kandi man de defoon ngeen fi tour de kii man ak ñu fi defee tour moom. Eh, waaw eh, eh, tour de waay. Ah, ñoo ñoo ko fi def ñoo ko fi tour de kii. Ah. kii ñoo ko fi def. kenn ki kenn ki foog ne xam nga lan kenn ki foog waaye déglu waay déglu léegi ñu exclure les mots clés là yi nga xam ne mooy yëngal Seydina eh. non non kenn ki daa foogoon ne kenn ki daa foogoon ne daa am kii bu kii nekk ne kii am kiiwul keneen kee am kii bu gën a kii loolu la suñu kii yee tolloo non non tolloowuñu kenn ki moo foog kenn ki moo foogoon ne kii bu kii la am nekk ne keneen kenn woon tekk nekk ne moo am bu kii <laughs> déedéet ñun ñaar dañoo am kii yoo xam ne dañoo xaw a tolloo laar yi mën nga kii si ah, waaw ñoom lay xaar ñu pare ni ñu kii ak kii kii voilà ah, li nga xamante ne aussi dañoo comme ni ma ah. ko waxee parce que velours dafa nekk tendance te sedd bi ñëpp xam nañ ne velours daf ciy rafet y a yoo xamante ne en velours lay doon te dafay rafet mais ça coûte très bu fekkee ne amuleen loolu leen ko jënde kenn forcé wu leen pour ngeen jënd ko mën ngeen dem ci friperie yi bu fekkee ne tey sit trop tard pour ngeen def ko tailleur yi ñu ngi foofu ñi ngi fii marché boo dem boo demee marché HLM boo jëndee sa benn velours dem jox ko tailleur bi da ngay toog ci saa si mu ñawal la ko soo demee galerie dinañ la ko ñawal jooni jooni mhm. boo ñëwee laari couture dinañ la ko ñawal jooni comme ça tey tonton Daouda nekk fi damay def lu ma neex <laughs> voilà da ngay daal di jënd moom moo yoo xam ne ah, yéen doo leen ma pes mais moom day pes ma lay ngëdd nga naan ma lan <laughs> mais mais li ma bëggoon laajte rek euh, Maïté. <laughs> même que euh, pantalon super sang yi même góor ñi am na ñoo xamante ne bu ñu la ñawalee costume da nga naan directement Italie lañ ko ñëwee ci machine bi. voilà seen na li ma bëggoon laajte rek xam nga dañuy gis que dañ nekk ci période de sedd par exemple. Mhm. dafa am ay est-ce que du ay tissu yoo xam ne comme par exemple velours li mhm. xam nga boo ko solee du du du sedd trop wala. Mhm. ça réchauffe ah ça dépend dafa am ah velours yo xam dafa oyof. am ah, velours yo xam dafa lourd dafa diis. Oh, amna na velours yoo xamante ne genre tissu bi genre euh, tulle lay doon léegi mais velours bi dañ ko ci décorer ni ci kaw. Oh. ça dépend ci li nga bëgg mais Seydina fi mu toll lu mu tang tang guddi gi amna yenn milliers yo xam bo fa démé da fay sédd lolu aussi dañ ko jara dafa jara sóoraale. surtout ñi nga xamantene dañuy génné seen doom yi di and ak ñom amna ño xamantene mëno fexé ba 20h la ñuy génn seen kër jubali place de l'Indépendance mhm dañuy yóbbu seen doom ñooñu nañu couvrir seen doom parce que mag li mu a résister xale mënu ko résister da ngay gis sax mag boo xam ne bu ba ñëw après di kon nañu même que pétard yi am na xale yoo xamante fit mayu leen ñu jël ay pétard yu mag di taal ay dërëm taj la taal mm-hmm. comme ni ko am francs ay yu 125 ainsi de suite mais am na yenn mag yoo xamante du def benn dégât juste ay étincelles. lay jeex sa xale bi daw. mais am na ñoo xam ne ay euh, jeu artifice nu mu tudd sax. kii feu d'artifice euh, feu d'artifice la ñuy dem jëndi ku koy jënd. na nga dem ba foo xam ne leer na na ca kaw asamaan sa lay dem nga taal ko ko ndax jàmbur bu tabax këram ba pare fenêtre bi féete ci bi biti xamoo ndax dafa ubbi fenêtre bi rideau am di génn te rideau yi léegi dara du si coton yëpp soit lay doon wala lii xale mi ngi fa nga jël ko tiimali ko mu dugg ci biir indi fa incendie boo xamante ne kenn xamul lan lay yàq jaru ko ci affaire boo xamante ne dix mille francs nga ko jëndee wala quinze mille mag da ngay def yëfu mag tubaab yi ñuy roy dañoo am seen place boo xamante ne ñoom ñëpp fa lañuy dem taali seen ay yëf bu ñu paree ku nekk dem ñibbi duñu tàkkal lenn mais ñun suñu koñ yi xat na fii lu courant yi mi ngi partout mhm. boo jëlee benn affaire taal ko mu lakk fil bi nga indi jëyi boo xamante ne pétard bi lu mu cher jaru ko ci ay foo moo leen ko indi woon bu ko de ñun dañoo bëgg a feetee suñu feeti si jàmm commencé suñu 2020 bi si jàmm kon nag mag yi nañu

yow dañ jënd ay robe de marque yoo xamante ne ça a coûté peut-être ay 200 euros 300 euros sol ko benn yoon dañ koy def ci genre site en ligne yoo xamante ne dañ koy mmh. louer wala am na ay magasins yoo xamante ne ñoom ñooy récupérer tenue yooyu def ko en location léegi yow par exemple pour un événement comme par exemple 31 nga bëgg a génn bëgg a sañse da ngay dem louer yére bi tu me poses ça je te te réponds man am na sama benn xarit boo xam ni daf ko louer smoking waaw da ngay louer smoking wala nga louer tenue même tenue euh, carnaval yi wala Mardi Gras yooyu dañ koy louer Voilà, louer mais loolu laa doon bëgg a wax loolu am na mais tenue carnaval yi wala mardi gras yi ñoo gën a bëri luñ koy loué am na ñoo xam ne seen yaay yi bu ñu leen jëndalee da ngay gis lu ci mel ni femme chic mm-hmm. wala réseaux sociaux yi ay yeneen mm-hmm. euh, groupe yi nekk ci Facebook mm-hmm. mardi gras buy waaj a ñëw dañuy def location de tenue temps mais d'habitude ci li mu gën a mooy robe de mariée yi waaw waaw loolu moom location moom ku ko ci bëgg moom